naka jekk Pastef xamoon na li muy def ndax Macky Sall dafa teg ndëgg sërëx teg piège ànd ko waa PDS ak ñenn ci soi-disant opposant Khalifa Sall Pape Djibril Fall ñooñee nga xamante ne mosuñoo wax ci violence bi nga xamante ni ñu ngi ko doon exercer ci waa Pastef ñaata nit lañ fi rey ñaata nit lañ fi tëj ñaata nit lañ fi yàq liggéeyam Ousmane Sonko ñaata yoon lañ ko persécuté ñaata yoon la état bu Sénégal

Ousmane Sonko vitre otom barricade ko cinquante cinq jours coow liñ doon def di yàq der Ousmane Sonko ak tamit xañ biñ ko xañ ngir mu bokk ci élection yi ñoom boobu ba tey waxuñu ñu xaar ba gis benn loi boo xam ne Macky ak ñamu àndal ñoom ñoo ci bénéficié wu. té ñom ñoo ci am intérêt ndax lan lay xaar ba mu dese ko ay 25 jours pour mu jéxal ci nguur day woté dialogue waye mu né day day def apaisement dafa bëgg Sénégalais yi jubbu waye crime yi fi amone de 2021 février ba 2024 février lépp ñu bal ko crime yi fi amone ñu yàqu-yàqu yeeg lépp dal apaisement am nga xamné Macky Sall kon xamone né élection dina am mars

muy loo xam ne victoire la ndax it ñoom amuñu intérêt sax voté ko donte ñoom ñi nga xamante ñoo fare ci nguur gi waa benn Bokk Yàqal Sénégal dem nañ sax bay plaider pour la libération immédiate de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye ñu dem sax ba Abdou Mbow di wax bay xëexët ngir rek Ousmane Sonko ñu libéré ko kan moo ci perte PDS Karim Wade ñoom ñi nga xam dañoo tegoon dil ndëgg sëra far tàbb ci ba tax na boo ànd kilifa da nga koy déglu Pastef Ousmane Sonko noppem gi ku ne xam ne ay wax la. kon fu waay demoon wala nekkoon di xas ak di tuumaal di taqal Ousmane sunk ak waa Pastef delluwaatal defaatal li nga defoon lii sax baax na ci ndax tax na ñu xam kii ki ñu ci bari. fëggoon nañ seen dëmm dënn sax du moins wër ci plateau yëpp di joxoñ baaraam tuuma Ousmane Sonko ne day dil day waxtaan ak Macky Sall te ñoom xam ne ne waxtaan amul ndaxte bu waxtaan amoon kon Karim Wade dina mën a bokkaat bu waxtaan amoon dinañ defaraat processus bi bu waxtaan amoon beneen élection mooy am budul bii kon Macky Sall dafa mel ne lajj na lajj na ay yoon yoon day génn nag ci petite porte boo xam ne moom moo ko teg boppam waaye nag jëlli bi day gën a ñaaw ndax it sénégalais yi ci boppam ci jamono ji ñëpp son sonn ñëpp tay ñëpp doyal sëkk sëkk sëkk ci nguurug Macky Sall rawatina ci mujjanteel bi nga xamantene metti kon mbokki passé fa ngi noonu projet la du jëmmi nit kese lañuy topp kon kenn ku ci nekk mën na ko jiite day fekk kooku loxom set waaye day fekk kooku jub ba noppi mën a ànd ak askan bi bañ ci xeeb kenn te xam ñun ñëpp bu nu àndoo rek liggéey Sénégal jëm kanam